leen ko gën a mag dañ leen di jàpp géré leen ko géré mais ni nga bëgg a doxale la dama dama ragal dama jëm ci problème fa la moo tax nga calme non aw ma fii fii fii c'est quoi ak suma bakkanu njaboot yàlla ak suma bakkanu doom lii rek moo newoon si oto bi lii lii rek moo newoon ci oto bi te man dañ ma ko jox dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko jox waaw kii mbaax baax ku la ko joxoon ah? ku la ko joxoon kanu bi moom dafa voyage sax wallaay dafa voyage man dafa ma ko joxoon wii ne ma grand grand yow li ci li ngeen di arrangé waaw grand nañ ko gérer dañ koy gérer bàyyi bu ñu eggee fan fan lañ koy gérer bàyyi bu ñu eggee fale brigade non foofu day doy waar ah doy waar ndax la foofu day doy waar bàyyi ñu dem ah? fii fii mbedd bii nii non ah? wax leen ma doxalee mënu muy demee rek ma gérer ko léegi non bàyyi bu ñu eggee